saxu baax yooyu nit dana ca dem ba it yàlla dootu ko tudde nit dafa koy tudde sama àndaale waaw daa ca dem ba mu wàll la wóoloom wàll la dëgëram ala inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun waaw ñi tey àgg ci ànd ak yàlla miin ànd ba ba dara dootu ko ragal loo te dara du ko jàqlooti mu mel na ñu ko yàlla defal ci jamono doy nañu kilifa sëkk nañ koy waxtaanee ak sunu benn mbokk bu nekkoon ci woon te yàlla boole woon ko ci contestataires yi booba gën nañu di xaleel waaye nii nit di deme ci kër nitu yàlla di fa ziyaara ak yu mel noonu daf koy métti waaw mu di ko tawat rek nag wàllu contestation léeg-léeg bu ziar amee coowoon mu dem dajale dof ya ca marché ni parce que kenn xamul fu yàlla nëbb nitam waaw ma ne ko aha mu ni waaw ma toog ba mujj mu jóg ma ne ko foo jëm mu ni sama kër ma ne ko loo fay wuti mu seet montaram ni ma damay añi ma ne ko ñii daf la wóor ndax yàlla nëbb na ci ko war a bokkal añam déet mu ne ah ma ni ko déet moom kay nag boo dee défendre lëpp da da nga cay dem ba mu jeex nag ñii nga ni xëy ne nitu yàllaa ngi ci te nangu la bokk ak ñoom añ waaw ma ni ko kenn mënu ko dégg ba moo tax yu ci bari moom yaa koy wax weddi sa bopp ndeysaan suñu mbokkum daara mu baaxoon sa bëgg bàyyi bi parce que na koy waxtaan ak man nee na ma Cheikh sa mbokk dafa bëgg doom ba kenn du génn te waxuma dafa fiire jigéen bi ñun góor ñi sax daf ñoo fiire te mu ne man mënuma toog nee na moom it mu xam ko def ñu fi mag fexe ba néeg ba ci biir mu jox ma ko te bala nga génn jaar si ci néegam ah chef ttt nee na daal mu nekk fitna boo xam ni ne ma it ma def sa pexe mooy bu guddee ma jaar ca palanteer ba nee na jël benn ràbb yëkkati këf ko bu mu jóg ma mbas ko nee na mu tëjuwaat nee na bu ma ñëwee dugalaat rek yëkkati mu ubbeeku mu dugg mu jekk rek nee na di ko def ba benn guddi xaw ma lu mu doon wut ci néeg bi ñëw gisuma te romb naa ko kat jooy tëdd nee na mu yër ci suufu lal bi gisul kenn mu ñëw ci palanteer bi gis ñu tëj ko ci biir ne mu ni pat waaw waxul dara bu cëllëg nee na waxtu wa jot mu ñëwati nee na gisul kenn li ko moom daal dama ragal ni dinu jur sàcc bu rëy nee na mu ne ko kon nag sàkk ci pexe des nee na ndekki lu xaleel man maga ko ko dàq nee na góor gi jël wuti juróom benni xandi ak ñeenti beñuwaar nee na tegle leen ba ci kimi ju paranteer ba mu bàyyi ko fa nee na ma ñëw rek def ni ma daan def dañu dugal rabbu bi ubbi parenteer bi bu jekk comme bala maa génn damay fay lamp bi nee na ma summeeku pour bañ dara lu ma lonk ba summi yépp ba ne taas nee la ëmb ko ba mu def bul rek ma jël ko nee na dal di jafandu ba ma jafandoo daal ba defi nit ci péerloo ci def nee na àndandoo xandiyaar beñuwaar yaag ne man dama def noonu buuf te dafa wat ndax coow lu bari ctt nee na fi ma ne dar dal nee na góor gi ni kaccit bunt bi tàllampu pil bi ne maa ngi ni dungu dungoor nee na soxna si ñëw tiim ma ne ah ok lii lay mën a nangu waaye baax baaxi mag ñi ak jublu gi nit ñi jublu daara bu ko dara jiitul woon du ma nekk fa fajal afidatan min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamarat looloo jiitu ba tax na yërëmante bëggante dimbalante jàppalante ñaanalante fexe lente yiw bu amul ku ne weddi sa bopp
Maktoum Prod.
waaw bu amul ku ne weddi sa bopp te Ali ibnu Abi Talib ba ñu ko reyee waaw bañ ko ne wattul ibnu muljim nee na dina la rey mu ni pat ñu ni ko addul ku wax ci këram ni dana la rey ba ay nit dégg ko ñu wax la ko doo addu mu ni kayfa aqtulu qaatili ki yàlla namm ci loxoom sama bakkan jaar ca naka laa koy fexeele mënuma ko ah mënuma ko ah mënuma ko moo tax sëriñ Alioune daan na wax ni mag ñi dafa am lu ñu gëm ñoom gëm lañ ni jàppal xalam billaay nee na gëm nañu ni jàppal xalam waaw waaw xalima ga yàlla doon bind li nar a am ak lankar jadul far ba mu ko bindee ba ëf ko ba mu wow nga soog a ñëw nag ne ko faral ma ci nangam ne mag ñi duñu ko nangu ñoom li ñu gëm mooy jafal xalam waaw gëm nañu it rafaul xalam dana mag ñi gëm nañu ko mag dana dund ci diine baax ba àgg ci ay at fu yàlla yi gëdd bindkati bakkaar yi ni leen bu leen ko bindalati bakkaar ne rafetlu xalam am na nee na nit it dana wëla rek yàlla ba xëy wàcc ko ba yàlla dëggu ni wàccu ga wàcc ga am na mu wooy ñu koy bindal bàkkaar ne jaratu ko waaw wallaay jaratu ko bu ko defee nag kilifa li muy baax baax nag bokk yàlla it wax ak njaboot yi ànd leen ak kilifa fekk wootewul ni mooy man waaw ànd leen ak kilifa fekk wootewul ni mooy man ndax yëguma fu mu mën a nekke man waaw wa ma kaana li basharin an yuutiyahu llahu alkitaba walxukm wannubuwa summa yaqulu linnaasi kunu ibadan li min dunillah mënul nekk walakin kunu rabbaniyin jeex na lu yonent for for ci jamonoom topp leen bés bu leen ne ma yàlla wacc leen ndax yëguma yonent ngoree di war a àgg ci moom mu soppi nit ñi ay jaamam mënul nekk mënul nekk te ma it yëguma fu sama yàlla wàññi ko ba ma nangu ku yem ak man ah wala yamurukum an tattaxidu almalaikata wannabiina arbaba a yamurukum bil kufr baada id antum muslimun mënul nekk ba tax na mooy li Cheikh Alhaj Malik waxoon ni taalibe ak sëriñ jeex na baal naa leen ko jàppe naa leen ay bokk bu nu demee ca sunu kanamu borom ngeen di ay bokk may may bokk waaw waxin la waxin la wu mbooloo mi war a roy ci kenn ku ne xam ni sa mbokk nga amal affaire ndax Ali ibn Abi Talib dañ ko ni am nañu feddeeku ci jullit yi am nañu feddeeku ndax nu xaret ñoom mu ni ëpp na def ndax kiy wut dëgg ba jadd kenn du ko jaawale ki wut neen ba jot ko te looloo am kiy wut dëgg ba juum ca biir wut ga boo ko beree def musiba ndax wutul neen dëgg lay wut waaye juum na ca wutin wa ah dafa mel ni ku xam li xew ci jamono da bàyyi xel ci loolu ndax wala tarayan wala tarayan fi l ardi dunaka muminan wala kafiran xata tuxayaba fi l qabri waaw diw dafa font diw dafa font diw dafa font booba dafa fekk nga yëg ni yow baaxle nga waaw waaye kuy wut du xam ku bon le lu mat a bàyyi xel la mbooloo yërmante bëggante jàppalante rekk mooy jàmm ja mbooloo mu ndaw ak mbooloo mu mag mbooloo mu ndaw mooy bi nga bokk ak say xarit ci biir néeg mbooloo mu mag mooy bi ci pénc bi ñoom ñëpp bu ci ne ak mbaax a koy téye
Maktoum Prod.
la waykat ba taggoon waa réewam qawmun ida charru أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه ذرافات ووحدانا naa loolu borom parti politique yi mën nañ ko dégg weddente warul a jur xarente waykat ba nee na man de sama waa réew amuñu moroom ndax lu ñu werante werante bu musiba taxawee ku ne dencal sa moroom mer ma nga ko mere woon ba ñu xareet musiba ma ba mu dem yoonam قوم إذا شروا أبدانا جذيشدهم طاروا إليه ذرافات ووحدانا moom la wolof yi di lépp dañu borom bakkan bu la ne mbas maa ngay ñëw ne ko ay ca waaye bu ko ne ay ca mukk ne ko bu ko waxati waaw moo gën que lu ne am na lu ko gën wolof nee na borom bakkan bu la ne mbas maa ngi ñëw ne ko ay ca maanaam lañ ca jublu mooy bu ma reyee rey la te dëgg la waaye bu ko wax loolu gën ko gën ko waaw waaw gën ko ne ko ëpp naa wax waaw ndax mbas kenn du ko ñaan ba moo tax ah na toogaay yi dafay faral di léegi léegi la la ah ñu ngi tolloog nag tabaarkalla yal na yàlla yàggal jàmm na yàlla def yiw qawmun ida charru abdana jidayhi lahum taaru ilayhi zarafatin wa buxdaana e nanu bokk yiw waaw nanu bokk yiw sunu wëyjur wi bare yërmande ci nun di sunu kilifa gi bëgg yiw ci nun di alxaaji abdul aziz dabaax dafa ñëw ca jàkk sëriñ babacar si am lu nu déeyante jëme ko ci alxaaji saidu nuur ma ni ko sunu maam bu sopp kër gi la ma ni ko te bari yërmande ma ni ko soxna si dafa mas tawat góor gi ni ma yóbbu ko ca sa maam xaaji Saidu Nuur ni ko nu ko wutal doktoor lu tax xanaa cheikh doo ko jox ñam waaw mu ni xanaa doo ko jox ñam mi ngi tuuti mu ni ko lay li ma man maa ngi koy def waaye dafa foye ñam muy def bu xëyee suba moom ci boppam indi ndékki jox wallahi ba muy bëgg ëpp weer bi soxna si dellu mu wooma ma ñëw mu yëkkati benn jallab bu weex jox ma li ma dee ko sol te bu ko maye soxna saa ngi toog de soxna si ni ko ne ci sa xel dal du ko maye ba ñu ñëwee ba ca kër ga benn mag ni ma jallab bi la bëgg nga may ma ko soxna si ni ko du ko maye ndax ki ko ko jox nitu yàlla la te nitu yàlla la mu def moo xam lu tax ma di ko nettali Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabba mu ni ma xam naa ko wax ma nag cosaan la waaw ni ma nii la deme nii la deme nii la deme waaw ni ma jàllab la bu nga xam ni fanaan na ci bàmmeelu yonent bi fanaan na ci sa raw du turando waaw ni ma ñaar la woon mu jox ma benn ba jox la benn ba ma ne ko xamu ni ma bi ma joxoon nag dana la ko yónnee ci la mu ni ma it maa ngi tàmbali benn xasida bu may def ci yow su noppee danaa la ko yónnee mi ngi di ma koy su ko yónnee Haj Malik moo ko indi léegi wa tabarakallahu wax ni daal way la woo xam ni mi ngi ko jëme ci koo xam ni mooy doomu mbokkum boppam tey turandoo sëriñu boppam waaw te mu di Ahmad Tijani bu alxalifati almarhum Abi Bakr mu ni ayaa najla alkiraami samiya cheikhi mumiddi alawliya man laa yaxiibu وعبيد أمه يرجو مفازا من المولى الذي هو الرقيب زيارتكم بها تحيا قلوب لنا عنا وتنفرج الكروب زيارتكم لنا فوز وغنم بها تمحى الخطايا والذنوب بها جود بها الحاجات تقضى بلا مهرب بها ينجو الكئيب بها الأمراض تشفى دون طب فالرؤ- فرؤيتكم لنا مرعا خصيب وعالج بالزيارة خير شاف سقيما حبه فيكم عجيب أيا شيخ التجاني فكن رحيما لسادات لهم أنت الطبيب وأعطيموا حقوقهم جميعا نح قلوبهم برؤيتكم تطيب لنا خصص ولو في الشهر يوما تزور الأهل أنت لنا نصيب وصل على المطهر خير هاد شفيع الخلق أحمد يا قريب وأصحاب كرام ثم آل وأزواج له نعم الحبيب فتبارك الله إيه moom de gën na rëy ci nun bu ko sëriñ Babacar si defoon waaw gën na rëy ci nun bu ko sëriñ Babacar si defoon ndax dañu wax ni ku la wuutu boole na sa cër ak cëram waaw rawatina cofeel gu kenn judduluwul ndax sunu maam ji ma tudd léegi xaaji Saydu Nuur yal na yàlla yokk leeram bés ma ne xam nga loo bokk ak sa bopp ma ni ko waaw waaw mu ni ma lu ngeen bokk ma ni ko mook Sëriñ Babacar Si Haj Malik moo leen jur mu ni ma dégguloo ko mu ni ma li ngeen bokk mooy su ngeen juboo yàlla defar jamono waaw waaw jëw ko jëw ko jëw ko jëw ko ku ko xam la waaw jëw ko jëw ko jëw bu mel na ba ko sunu bay ba jëwoon président Lamine Guèye dafa ànd ak moom dafa ànd ak El Hadj Abdoulaye dafa dem màkk bàyyi ko ba mu toog ci biir nit ñi mu laaj ko laaj bu nga xam ni ña ko fekk ñépp nañu dañu doon miir laaju borom xam-xam nee na mu ne tekk ba mu yàgg ni ka am mas naa ko laaj Serigne Babacar Sy mu wax ma ci nangam wax ma ci nangam wax ma ci nangam wax ma ci nangam wax ma ci nangam nee na ba waxtaan wa jeexee ba mu dëdd nee na ma ni kii ñaanal leen ko gudd fan bu ko ko yàlla mayee fu mayu waajuram bi àgg ak magam yu baax yi ci ñaanu jullit yi yàlla dina fa àggale mayam waaw te yooyu yëpp ñu waxtaane ko ma dëgg dël ko ma dël ko ni ko bala noo bàyyi ñépp nekk benn mu ne ma mayit maa ngi lay dël bés boo ko def loo waxati yàlla mu def ko